toll gis nga bu dafa am loo xam ne dañ ko bokk. Mhm. xam li ñu bokk mooy lan li ñu bokk mooy li nga xam ne nii mooy règle yi nga xam ne moo ñu régir ñun ñëpp président moomu ko ñi ànd ak moom moomu ko parce que ñi àndul moom ñun ñoo bokk réew mi dool wàll bi ñu am ci réew mi moom lañ am ci réew mi. Mhm. donc dafay am bu ñu jëmee élection bu mel ni élection présidentielle deux mille vingt quatre ñu mën a toog am loo xam ne ni dañ koy waxtaanee mooy règle du jeu parce Sénégal dafa am tradition boobu. de tout temps depuis la confrontation sanglante la crise de 88 et le code les concertations le dialogue politique le dialogue buy suivre bu indi le code consensuel de Kéba Mbaye en 1992. Mhm. Sénégal dafa am tradition balaa ñuy dem élection ñu toog ñu waxtaanee les règles du jeu mais loolu le président woote mais nee na duma du ma ko yemale ci dialogue. Euh, Euh, politique nañ ko def dialogue national def ay commission tous les segments ñu woo leen mais segments yooyu bu ñu leen wooyee le dialogue national dañ ko institutionnaliser. li mhm. ñu koy def on le fait dans le cadre de l'État suñu paree ñu dajale Sénégal yëpp kilifa diine yi artisans yi menuisiers yi mécaniciens yi patronat bi euh, baykat yi euh, nappkat yi éleveurs yi mais dialogue bi artistes yi sportifs yi mais ñëpp commission yi ñu jël ñëpp a ngi ci Sénégal yëpp a waaw bu ñu leen wooyee pendant quinze jours ñu ne kaay leen ñu wax problème mu réew mi à travers les différentes commissions qui ont été mises en place mais li fay génn donc xalaat yi xam nga xalaat yi fay génn xalaat yooyu yëpp xalaat yu jóge fépp ci Sénégal la. mais xalaat yu jóge Fongolemi la. Ah, xalaat yu jóge maatam la xalaat yu jóge Kajoor la xalaat yu jóge Bawol la loolu nag bu ñu paree moom la ñuy dajal xalaat yu rafet yooyu. Ah. moom la président di doxale loolu. Sénégal ñëpp ko soxla parce que loolu moo intéressé réew mi ensuite sur le plan politique. mais fa loolu moo ñu euh, sur le plan politique. oui euh, dialogue bi am na ñoo xam ne bokkuñu ci. ils ont préféré la rue. oui et en en ce moment c' la rue qui fait beaucoup plus euh, de bruit ñoom la ñuy gën a dégg ak des dégâts yoo xam ne xëy na ñooñu buñ ci bokkoon wala. wala règle du jeu fekkoon ne définir nañ ko dès le début kon tey ce qui se passe dans la rue Ceux qui ont choisi la rue ont choisi d'être en marche de la République. C'est aussi simple que cela. Mais les conséquences Sénégal ko yëg malheureusement. Les du ko yëg. Sénégal du ko yëg. bokk je lis pas les deux. Je lis pas les deux. Je je parle du dialogue. Ceux qui ont boycotté le dialogue. Ceux qui ont boycotté et qui ont choisi la République. Mm-hmm. Ils ont choisi délibérément d'être en marche de la république loolu moo tax ci président ne la woon ku gedd sa yaay aye ñooñu lay waxal parce que ñooñu pourquoi c'est irresponsable c'est irréfléchi leur posture parce que liy génn ci dialogue bi liy génn ci dialogue bi mhm. ça va faire l'objet d'un consensus dañ koy yóbbu assemblée nationale bu ñu demee assemblée nationale am na ñu demul ñoo xam ne am nañu ay député danañ ko discuter assemblée nationale bu ko voté ba pare ñu yóbbu ko président promulgue ñu yóbbu ko conseil constitutionnel. Hmm. président promulgue loi bi ñu choisir la république ak ñu choisir woon la république ñoom ñëpp daleen di tënk donc loo xam ne nii yow demoo ci waaye bu ñu paree da dalay tënk da lay concerné lañ fay jàpp te ñu ne la kaay joxe sa xalaat. boo ñëwul joxe sa xalaat mooy réew mi ñoru la amuloo xalaat pour réew mi. mais nangu nga sa xalaat bokk ci liy doxal réew mi. jàpp nga ne dina yombee noonu da di tënk nii rek wax ko nii. parce que dans la rue on a vu ce qui s'est passé. ils ont paralysé le pays pendant au moins quatre à cinq jours. waaw defal naa ma ni liy jóge ci dialogue bi da leen di tënk. da leen di tënk ci la ñuy bokk mu neex leen di ils seront concernés mu naqare leen ils seront concernés waaw ko nangu ils ont déjà fait leur preuve attends mais mais dama bi li ñuy def non loolu bokkul dialogue bi lañ fay waxtaane loolu ça concerne les sénégalais et ça concernera tous les sénégalais parce que mooy luy tënk li nga xam ne nii moo ñuy yóbbu ci élection tënk ñu li nga xam ne mooy renforcer suñu démocratie consolider suñu démocratie ak état de droit